xol waaw bëgg nañ comme nag njaboot bi ñu ngi tukki na ci ànd feeral lu nañu ko ci wax ñu ngi wax ci làmmiñ dëkk bi yëpp na ngeen fekkle ko seeni maam fexe ba yàlla jangal ñu damm-damm bii ci num kalgaawe balaa maa jëf sas maa ci Babacar mu daan joxe kat moom benn jaam yàlla ñu ci mbooloo mi dëkk ci dëkk bi nag ci kër yi la démb mu dafa gis Seydi Ali Cissé baabul xadrat mu xalamuha ba pare jumaanuha mu ubbi ay loxo mel ni fii ay loxo di wax ci waxi arab naan alaa fa zuuruuni alaa fa zuuruuni alaa fa zuuruuni démb ci fajar loxne la ko yàlla woon te ci gan yi la bokk munoon dama ne ziara leen na léegi nii bi ñuy waaj a kàbbar da sama xel la mës boobu jaam yàlla bi wax ma tom nekk alhamdulilah rabbil alamin ziara Seydi Ali Cissé nekk le 21 su fekkee duuma sëriñ ma bëgg a dimbale suma bopp dimbale leen ko gént taalibe la bu am yaakaar comme Seydou Aliou la gént te mas na wax ci làmmiñam ne musuma def sëriñ bi musuma mooy ndigalul sëriñ bi dara benn yoon Seydou Aliou Cissé wax benn yoon laa fàttaliku fu ma mooy ndigalul sëriñ bu ne sëriñ bi rek bàyyi ci ñu ne ko fan la mu ne daf ma dénkoon xaalis na Seydou Aliou soo xëyee joxel ma dépense jël ci jox sa kër dépense ndax su ñaari kër yi benn kër journaliste bu xëyee bàyyi dépense dem uti dépense bopp mu ne lii la ma sëriñ ma sa suma dund ko ku yàlla may cër la ci bàyyi bàyyi tudd na ko taani mu juuti bu doon doom gura laa benn ngàdd bi yow la wax na ko lu bëri ci man ñun ñëpp benn jëmu ko كنا ما نعرف اسمه لولي ناجي عبد الرحمن سيسي صلى الله عليه وسلم نلقى حق زيادة سيد علي سيسي مو كون واري سيادة ربك سيد مفير اي لغم لسيارة لنا نلقى حق كيادة كل كل بين التيمير الدرب ويقول لنا نلقى نلقى جابو سيو صغلنا نلقى جابو سيو صغل ميدوكو صلى الله عليه وسلم ويقول لنا سيناريو نلقى حق بأم ذلك ورتلفون مدنه ñu naan koy ba xaalis ba ba dem fanaan def incha allahu taala wala suba ñu fexe xaalis ba mu dem kon dem métti na. comme sëñ. dugg ma la. seigneur moom ma doy seede damaa gént bàyyi benn gént. Thierno Hassane Deme mu ne fu mu andil téeméer lépp loo sàkku ci yàlla. waaw tey tey Thierno Hassane Deme dafay def seen analyse ci kër. soo demee gis ngeen benn monsieur. kon nag ñu bëgg mooy nañ fexe ba kenn ku ne ci ñun nag génne ak téeméeri dërëm wala ku am lu ko. da nga jàpp ci sa soxla ñu jox ko Seydou Aliou Cissé buñ paree ñu jox ko Oustaz Mamadou Habib mu fexe mu mu dem fanaan di mel Oustaz Dramane di wala nga ñettee Seydou Aliou Cissé. waaw mbokk yi. di sant yàlla bu baax. ndax lii Oustaz wax ñëw ñun la ko dimbale. yaakaar naa autoroute bi ñu doon wax léegi autoroute bi yàllaa ñu nar a dimbale. kon kenn ku nekk rek nga ñëw ñu joxe téeméer bàyyi Cheikh Diop macha allah ate dikk leen dikk leen. am dikk leen. am ñëw leen. am am. Cheikh Diop tey ma. am bismillah. am dikk leen. dox bàyyi. dikk leen. defal lii. ñëw leen. ñëw leen. macha allah jërëjëf.